Mhm. Euh, d' accord euh, ñu bàyyi la ak moom d' accord Alioune Mbaye yaa ngi ci rajo Bawol Média fii ci Mbacké euh, di ànd ak Boy Ndiaye Fego ak Papi Cissé Alioune Mbaye Nder jamono ji bi nga déggee yëg-yëg bi ki suba lan la def ci yow. waaw maa ngi nuyu d' abord waa Bawol Média yëpp di nuyu waa Touba ak di ko di. ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di ñaan suñu ñaari waajur yàlla xaaral àjjana ak ñun fa ñun fa fekk ak woon fa fekk. amiin ñaan suñu suñu suñu jiitu yàlla seen leer tas seen barke ñaan suñu su nekk. si mhm. ba ci kanam. Mhm. numéro bi plus la am ci sama matin bi ma yeboo comme tout le monde. naturellement que xam nga nit moom bu bàyyeekoo ci yow foo jaar yëpp. Et John, il a marqué son monde, il a marqué le monde entier, le monde de la culture. Mm Donc, vous n'êtes une euh, grande carte pour la musique euh, africaine, mais plus particulièrement la musique sénégalaise. sénégalaise. Mm donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on vient de perdre un professeur. Mm -hmm. John était un professeur de la musique. Mhm. Même, même plus que ça. Il il était docteur. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Alors, lan nga doon gën jàng Thione Seck ci jamono dundam donte sax euh, yaa ngi ci naqar waaye lan nga doon gën a jàng ci moom ba nga xam ne wóor na la lii dama kaa dem copier euh, ci coon Seck ngir que mu defar ma man Alioune Mbaye Nder waaw non li ma bëri li ma jàng ci Thione bëri na parce que Thione bokk na mu tax ma gëm ni man ndekete waykat da dama koy faral di wax parce que wax naa ni te xëy na waykat dina way di dem rek waaye benn bis léegi gëm moom kat waykat la wala benn bis lay xam ne ah ndekete woon damaa def nii. Mhm. mooy bu ma ko invité ci takkusaan Dakar mun ma Aliou Ndao Mbaye Ndeer. ma mhm. ne ko naam ne ma kuy sa yaay ma ne ko Ndeye Ndiaye mooy sama yaay. ma soo amee ñett jox ko ñaar ñi ma ne ko loolu lay def. Mhm. ma yow mi di fa xam loolu waaye bu xotte nga ba bokk nga. waaw coon moo moo coon moo tax ginnaaw yàlla ma gëm ni bokk naa. nga yeewu ci li nga ñoom dama sës ci ñoom ñoom dañ daan wax Youssou Ndour Omar Pène Thione Seck Baaba Maal Ismaël Lo kese dañ daan wax. Mhm. yaa ngi mhm, bu baax moo war moo waral mu ne moom moom boo waxante nga bokk nga. <laughs> donc il a compris il avait compris quoi. donc mhm. xam nga donc nit ku dëggu la woon tey li mu doon wax euh, euh, amu ci woon xaj ak seen quoi fu mu ko war a waxee ak nu mu ko war a waxee da koy waxee noonu. d'ailleurs que euh, mën nga jàngat ci loolu mën nañ ci jàngat que ni moom daf la teel a nangul que ni yow ku ku ku teel a bokk ci nga waaye beneen beneen question euh, euh, tey lan ngay bàyyi xel sa diggante ak ñi fi bàyyi rawatina Waly Balago mi nga xam ne moom la bàyyi ci ginnaawam. mu mel nii rëcc na. ok voilà ah, oh rëcc nañu alors c'est vrai que takkusaanu Ndakaaru bu am solo la defoon. jaajëf Boy Ndiaye xam naa bu ñu génnee dinaa la may kaas café ngeen naan ndax. incha allah voilà ah, mu ngi noonu. benn problème. Hmm, ah? ñaareel wala benn aw. waaw alors. <laughs> <laughs> ba tey liggéey bi am na. ba tey mën naa nekk euh, donc Papa Thion euh, <laughs> booy xool. wala ñu wala ñu bàyyi ko mu yeggale waaw aywa bisimilah waaw Alioune Mbaye dafa dafa coupé woon. waaw. Euh, waaw bisimilah dafa coupé woon donc dafa coupé woon question bi moo doon. Euh, yow euh, jamono ji ñu toll %e Papa dem na bàyyi na la ak ay doomam ku ci mel ni Waly Balago Seck ndax sa mébét ak góor gi yaa ngi ko jëmee ci xale bi waaw wala déet. Ah, je pense que loolu defe naa ni Sénégal a gis nañ ak la yërëm. Mhm. gis nañ ni Waly mel ci man. Mhm. loolu moom je pense que mooy ci am na ndox quoi te ndeysaan moom. nëbbu ko cofeelam gu mu am ci man. Mhm. ba di ma wax seen ma wax moom sama papa dafa may wax ci yow exemple nga nekk référence. parce mhm. que Gambie je pense que ñëpp dégg ko may woy mhm. di ma rendre hommage xam nga ginnaaw bi mu sama morceau boobu ñuy wax yaru naa way ko ci biir bi. Mhm. moo rendre hommage di ma ci way di sama papa bi ci wàccuwaan. mu nekk fierté ci man nekk mbégte ci man. parce moom comprendre na waa li c'est c'est un gosse qui comprend. et je pense na si benn dono boo xam ça, <laughs> ça va être large parce que du pour du pour moom donc et moom bëgg aussi mu comprendre ko suñu tam ci lañ bokk. li ñu doon bàyyi ñun ñëpp ñoo ko bokk donte moom moo ko jur waaye ñun suñu mag la. te ñoo ko ci njëkk parce que ba ñuy woy boobu xëy na moom woyagul. donc xëy am na loo xamante ni bii dañuy ñaan la rek fexe ba vraiment di fi coon bàyyi mu bañ a yàqu bañ a nax say incha allahu taala. incha allahu taala. Mhm. ngeen di dugal seen loxo aussi ci li nga xam ne moom la fi bàyyi bien vrai que actuellement yéen ak. Euh, kii di Wally Balago ay ay xarit ngeen may benn témoignage bu mu mos a dégg ci sama nopp ak euh, kenn di doom ci eh, Papa Thione mu jëmee ko ci yow nee na ma euh, di Lamine Naar ak Thione Seck fi mu teg bëtam kenn moo fa teg bëtam jamono ji muy Alioune Mbaye Nder ndax moom dong moo ñemee assumer responsabilité am alors Lamine ex amante ngeen rapport waaw wala Lamine waaw way Lamine moom bu ma ko sax bëgg gis parce que doon sa la muy naan su gis tam fekk tigi. Mhm. toog la Lamine wala nga wax ak Lamine Naar. Mhm. loolu mhm. euh, am na ak moom relation yu yu nekk relation papa ak doom. bu ànd ak respect bu not notoire. parfois su ma dem Europe sax du ma yóbbu euh, benn classe dama ko fii bàyyi parce que bu ma demee. moom laay woo koy répété du ko sof du ko ja day ñëw def ak man li ma bëgg. lii mhm. ak man li ma bëgg. Mhm. loolu moo ko joxee nag musique ak baax mhm. donc kooku sama doom yi bokk la mooy li ma wax rek c'est-à-dire xam nga musique moom boo ci nekkee da ngay rek ba vraiment wàllu mu ngi ci nekkee nga rafetal ko ba képp ku ko seqal muy sa mag muy sa maas muy sa doom mu sa rakk parce que man dama am chance wu am quatre génération yu ma yu ma yu ma yu ma kii. te quatre génération yu ma bokkal. ñoo bokkal waaw muy sama sama grand frère sama sama sama sama sama sama sama maas gi. Mhm. sama sama rakk yi. ak mhm. sama doom. Mhm. donc sama doom yi mooy ñoom Waly sama maas gi ñoom Fallou Dieng sama rakk yi moo ñoom Fadou. sama grand frère yi mooy ñoom Youssou ñoom Thion. donc man yàlla defal na ma chance boobu quoi ma koy sant yàlla suñu borom ba tax na aussi loolu ma ta bàyyi xel la daal. ndeysaan waaw alors biñ lay euh, mujj bàyyi nga soufflé parce que euh, wax dëgg yàlla tamit mën nañoo wax ne monde musique bi wala rawatina nag euh, sénégalais yi yéen.

xam naa ni liñ ci war def ñu def ko parce que euh, comme bàyyi na fi déglu yoo xamante ne bii tey jii mi ngi way. Mhm. te parce kenn du ko jiitu ci mbaram. waaw donte am nañ ci droit. Mhm. waaye nit ku nekk li nga moom dañ koy bàyyeek dañ koy bàyyeek ci ko moom. Mhm. Euh, bu doxalee rek ñu topp ci ginnaaw xool ñu doxal. jërëjëf kon. waaw waaw kon euh, kon euh, lan lan ban ban ban ban ban bu doon joxe conseil tey yow Alioune Mbaye Nder tey boo doon joxe benn conseil ci ñëpp ñi nga xam ne ñooy artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci musique mbalax bi très particulièrement ban conseil nga leen di jox pour ñu xool ko ci Papa Thione waaw mu ni bu fekkoon ne da nga joxe conseil ci artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi euh, ah. jëm ci Papa lan nga leen di wax quoi ci Papa Thione. waaw ñu ci ci ci dëggoom ci fulaak ak faydaam ak ci professionnalisme. Mm-hmm. être un professionnel mooy être quelqu'un non seulement de très talentueux mais tamit euh, nekk koo xam ni. Mm-hmm. Euh, li muy way lépp ci yoon la ko teg. Mm-hmm. après mu ànd ak tekki. waaw xam nga dafa am nekk ak te coono ku gis ni mu nekkee woon ci musique bi may boole ko ak tekkin. Mhm. Ah, ba tax na man loolu lay digal suma mbokki artistes yi. Mhm. suma nattaango artistes yi. Mhm. leen wax ne que ñu roy ci moom ci ñàkk a yàkkamteem ak euh, ndoyloom ak surtout dëggu gi mu dëggu am na importance trop ci artiste. ay sincère dans la vie. waaw lu mën a xew rek. nga xam ni nii lañ ko war a waxee nii lañ ko man a jeex te nii lañ ko war a bokk nii lañuy bokk ñëpp bokk ko waaw ok merci beaucoup euh, jaajëfal nañ la bu baax waa Baol Média ñu ngi lay jëfal bu baax Alioune bay Nder ci nangu gi nga ànd ak ñun ah, ci édition spéciale bi ñu tuddal euh, Papa euh, Thione Seck ndeysaan jërëjëf sa liggéey rafet na merci beaucoup en tout cas ok merci beaucoup jaajëf booy rafet na lool jamono ji ñuy wax ak yéen 18 heures